jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun sans limite TV votre site d'information ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci euh, géeju euh, Soumbédioune ginnaaw xibaar bi nga xam ne jot nañ ko jëm ci li nga xam ne moom mooy ci wàllu géej accord de pêche yi nga xam ne euh, njiitu réew ma woon président Macky Sall signé woon na ko kii di président Bassirou Diomaye Faye da ko daal di dakkal ba ñu jógee nag bi la xibaar daal di ñëw fii nga xam ne moom moo ci Soumbédioune ngir tàllal suñu micro. ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñu wax ñu exactement mbir mi naka lañ ko euh, gisee ban jàngat lañ ci am ak jafe-jafe yi nga xam ne itam moom la ñuy faral di jànkonteel fii nga xam ne moom mooy ci géej gilee euh, ci Sans Limites TV votre bu baax. waaw ñoo ngi laa fay ñoo ngi ne euh, lépp li nga xam ne moo jëm ci accord de pêche daal dinañu koy dakkal yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ci géej gi lan moo ci seen xalaat. waaw accord de pêche yi moom mën naa la man si sama jàngat man si li ma si xam man gis naa li ko li ko commencé si Ablaye Wade si li ma jàngat mak Sall ba si nii ko jamaay di def ku ñëw def nga lu mel noon maanaam dakkal nga accord de pêche yi yi fii nga xamante ne moo la fi Abdou Diouf euh, bàyyi woon Ablaye Wade dakkaloon nag Macky Sall bi mu ñëwee tamit accord de pêche yi nga xamante ni moom la Ablaye Wade créé woon daggal dakk dakkal nag waaye euh, ñoom ñëpp ku ne signé nga lu ëpp li fi nekkoon loolu moom gis naa ko moom moo li jamaa yi def tamit man dama ko gisoon xaw ma nag moom nam koy defee waaye Ablaye Wade defoon na ko Macky Sall ñëw dakkal ko Macky Sall ñëw signé lu ëpp li Ablaye Wade defoon jomaay na xamoon na moom yàlla yàlla yàlla may mu wàññi. maanaam commencement bi dañuy dakkal. dañoo dakkal affaire bi maanaam dindi licence de pêche yi nga xamante ni ki fi jiitu woon moo ko defoon. dindi ko ba mu set ba nga yaakaar ni gis nga yow sax yow si yow muy mool sax da ngay yëg géej gi bi ñu dakkalee accord de pêche nga yëg géej gi ni mu changé mais bu nu bu kooku commencé liggéeyam ba defar ay signaturam ba euh, dugal ay accord am rak nga yëg li fi nekkoon lu koy yées dellusiwaat loolu moom lay am fii moom da nga koy gis waaw. léegi lan ngeen di xaar ci président Bassirou Diomaye. Bassirou Diomaye Faye dañ koy ñaanal yàlla. am si moom yaakaar trop nag di ka ñaanal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jubalal. yàlla na ko yàlla dimbali lii mu commencé nii di muy si euh, nu koy dégg muy si affaire jubal affaire jubal ak yëpp daal ah li muy def yëpp si affaire jubal ak affaire licence de pêche yi ñu wax ni dakkal na ko ah, yàlla jàppale su daal mu Sénégal yëg seen bopp bu baax daal yàlla na Sénégal yëpp yëg seen bopp bu baax ak fépp pour Sénégal mën a nekk di liggéey rek waaw. yan jafe-jafe ngeen di euh, euh, faral di jànkonteel fii. waaw mooy jafe-jafe yi xam nga géej fi ñu toll ay at yëpp ay jafe-jafe la ay at yëpp mën naan la ay ay ay jafe-jafe la noo dund da ngay am bor sax te doo ko fay koo xam nga jafe ma jafe mënul weesu lool géej gi amoon na jën ah jën bi jaroon na léegi géej gi amatul jën te jën bi kenn mënatu ko jaay xamuloo boto yi ñooy mbaal di jaay Europe wala ñooy mbaal di yow daal doo comprendre jën amatul jaratu da ngay leb boru jaamu sax dem si parce que mool mënul ñàkk leb si banque yii wala si pamekaas yi foog nga leb mais boo lebee pour nga fay sax yenn saa ay problème nga am problème nga am waaw ay problème ngay am ndax géej gi dootu ko maye nam ko doon maye fi mu toll nii géej gi nii man naan la depuis euh, bu nu umee koor ak léegi nit ku fi liggéey loo xamante ni mën nga si yëg sa bopp amu si géej gi fi mu toll nii nii fi mu toll nii nii nii kenn yëgu fi liggéeyu fi loo xam mën nga si yëg sa bopp. léegi yan xeetu jën ngeen di faral di indi fii. yan xeetu jën la ñuy andi waa xam nga jën moom ay période yi moo dox rek jën yi fi ñu nekk nii gars yi dañoo dañuy napp ay waraañ di napp sel di napp kasaw coof yooyu la noo napp mais daal doxagul moom doxagul waaw doxagul moom xamoon nag lan moo ko tee dox waaye daal xam naa ne li ma si gën a yaakaar moom ni moo ko tee dox ba tey si la bokk parce que fii yarank bi nuy napp rek bu yàlla andee tey gaal yi demoon tey andi tuuti yarank ñu naan eh tey de affaire yi tane na bu ëllëgee mbaal yi boo tey ba si fii mbaal jën woo yëpp yóbbu ko yarank bii la pulpul ngeen xam moo ko si wolof mooy pulpul waaw moo doon wax yarank nun waaw français français ñi làkk di ko wax pulpul waaye dama la boo ko bu ñu ko gaal yi nii tey nga gis ni eh tey de gaal yi changé na bu ëllëgee bu dem bu ñu demee duñ ko jàpp. faral di dem saa ngeen indi jën wala. waaw da dem. doo andi dara yenn saay day metti waaw yow da am yóbbu sa essence yóbbu sa fare yóbbu sa ay nourriture yëpp te doo andi dara doo andi dara yàlla baax na ñaan yàlla rek na ko wékk si yàlla rek te ñaanal yàlla jomaay yàlla defal ko jàmm li mu yéene si xolam te li ko wax yàlla na ko yàlla def rek si kàttan yàlla baax na te barke Cheikh Ahmadou Bamba ñu ngi lay bu baax. maa ngi leen di fay seen tur ak seen sant. Mm-hmm. alors ñu bëggoon a xam tuuti euh, ginnaaw bu la fekkee fii nga xam ne moom mooy Soumbédioune depuis quand yaa ngi fii. waaw loolu de li ma ci xam mën naa la kaw parce que bi nga xamee ni maa ngi fii fukki at ak ñaar daal laa am commencé dugg fii ci géej waaw ba léegi nag maa ngi fi waaw. yan jafe-jafe nga daan euh, faral di euh, gal dajeeg fii nii ci nga xam ne moom mooy ci géej gi. ñun suñu temps li am léegi ñun boobu amul ci ñun. ndax nu bi ñuy dugg géej boobu moteur yi amul gaal yi amul man bi ma nekkee fii dem géej boobu presque lu mat juróomi gaal amu fi ñun nag booba temps ah sunu tàng ak tàng bi la ko oral ñun dañ daan dégg waxi mag bu nu mësaan a xëy mag ñi bu leen gétt duñu dem te léegi nag amatul ci xale yi xale ko ci ni bul gétt mun la duma dem damay dem du xam nag lu tax nga wax ko ko te gune dina taxaw séentu du séen mag tëdd fi mu tëdd séentu gis la muy gis loolu tax suñu jamono boobu ak jamono xale yi bokkuñu waaw. d'accord alors ñu ñëw tuuti ci accord de paix yi naam yàgg nga fi lool président bu ñëw rek da ngay faral di gis à chaque fois la ñuy tàmbali moom mooy bépp accord boo xam ne si woon na ko dañu koy dindi mais bu ñu demee ba ci kanam rek mbir mi mel ni mosuñ koo dindi loolu itam ban jàngat ngay ci am. xam nga loolu man affaire signature yooyu yëpp man jànguma français alxuraan laa jàng. li ma jàng moom laa la mën a wax man bi ma fi nekk boobu man ma accord yi ñuy def a ak boobu bato yaa ngi fi di mbaal noog bato yi ñoo fi nekkoon di mbaal ci man li ma fekkee 42 ba léegi maa ngi dugg géej noog bato yi fi nekkoon di mais boobu jën yi bari na boobu bato yi dañuy jàpp nuy jàpp nun dégg mais nag lii topp nag ci ginnaaw bato yi muy mbaal yi nga gis fii fele fele yi yi ñu fi indi ñoo jokkoo yàq géej gi dañuy wax gi nga mool yi ba tey yàq na mais mooli yi ci la ñu bokk nan waxante dëgg dëgg yàllaa ko moom dëgg si ca mbaali caas yi ñu fi indi moo jokkoo rey géej gi ku neex moo ko jokkoo rey ku mu naqari moo ko jokkoo rey ba tey ñu ngi def seen ak xaw ma fu ñuy accord de yooyu mais ba tey boobu noonu bi fii nekk ba tey te boobu géej gi am na mais nag booba gaal yi mel ni ñu nii booba ñaar fukki gaal amul ci tefes gi. léegi nag fi mu nekk léegi tefes goo dem fi mu nekk gaal yëpp jot na fi mu nekk li fi li fi nekk ëpp na ëpp na junniy gaal te li ma téeméeri gaal dem na géej boo demee yof noonu boo demee Kayaar noonu boo demee Ngor noonu boo demee ja noonu boo demee Tëngéej noonu géej gi liñ ko yen moom la attundul liñ ko yen ni dëkk bi peuplé ci nit noonu la gi gi peuplé ci gaal loolu moo rey géej gi. alors ngeen di xaar ci euh, président bu bees bi di Bassirou Diomaye Faye. ñaan yàlla xanaa mu jàppale nu jàppale bi mooy lenn dund bi metti na ku ku nekk mag bi nga xam ne dund bi metti na di gi nag ah ci ñoom li ñu wax bu fekkee ni bato yi ñuy wax ñoo joo ko yàq ci li ñuy wax ñoom ah ñu jëm cee jublu si ah, li ñu licence yi ñuy laaj ah ñu jëm ko wàññi wala ñu jëm ko wala ñuy mbaale ci fi yëpp bàyyi géeju Sénégal bi su ko defee mbaali fele-fele yii li ko fi mën a dindi fa muy jóge ca kaw la ñuy arrêté bu nu ko arrêté wul du fi jóg waaw man xam naa loolu. ñëw tuuti sa liggéey wax nga ko yàgg nga lool ci géej gi papa mos nga dugg ci géej gi gis loo xam ne nii mu jaaxal la lool. ah géej gi de ñaara ci ne. man mu mosuma cee gis jinne mosuma cee gis seytaane waaye eh, baleine yi nekk ci géej noog ñoo ma daan nekk nii di dem ñëw. mooy mbakkan mooy baleen baleen baleen waaw kooku moom yàllaa ko um kooku moom bu fekkante ni yàlla umu ko gaal gu mu jàpp doo teer dégg nga si dañ daan moom nii duñu faale duñu ko faale boo déggee ñu naa baleen baleen baleen a ah, man de ci ba ma juddoo ba léegi dugu géej ba may ma douze ans ba quatre-vingt-cinq laa bàyyi géej te maa ngi ci quatre-vingt-douze ans mosumaa gis gaal gu ni baleen la ko toj mosumaa fekkee fu baleen yàqe gaal yooyu daal laa gis naa ko ci géej moom waaye gisuma ci jinne gisuma ci njuuma waaw loolu moom xam naa ko moom. waaw maa ngi tudd Aliou Diouf dëkk Soumbédioune nekk si pêche euh, pêche euh, di président commission scientifique ak recensement ak sa CLP CLP bu Soumbédioune waaw man loolu ñu doon pour ñu wax si suñu xalaat si géej gi ak si mesures yi ministre bi jël. Euh, loolu lu rafet la ñu koy rafetlu parce que looy def war nga laaj ña fa nekk les hommes qu'il faut à la place qu'il faut xëy na yegg si ngeen si acteurs yi waaw loolu mooy ngeen di xool ñan ak ñan ñoom moom wax ñan ak ñan ñooy dem si la ñuy leen di laaj bon géeju Soumbédioune nag bon du ma ne géeju Soumbédioune kese mais géeju Sénégal man ne géeju Soumbédioune laa xam parce que man def naa navigation xam naa li may wax maitriser naa bu baax li may def tax am naa si formation waaw léegi nag loolu laaj ñu leen ñu laaj seen xalaat. ñu xëy dégg benn xibaar jógee ca euh, présidence na li nga xam ne moo jëm ci accord de pêche yëpp koo daal di dakkal yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci milieu bi est-ce que loolu itam c'est avéré. bon si problème mu bato yi mooy sa collègue léegi li ma laaj si problème mu bato yi. Mhm. Euh, ministre bi comme dafay door a ñëw te jigéen la. parce que maîtriser ko loo xamante ne da nga laaj les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ñoo ñoo xam ji li ngeen def nag lu rafet la ñëw di laaj nit ñi ak xabaar bi ngeen dégg laaj ñu suñu xalaat ndax quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ndax am nañu communication wala dégg nañ ko euh, dinañu dina si baax parce que bu ñu ko jiyee jottali ko parce que ñun ay mbaar la ñu am comme fii ñu toog nii ay pénc moom la mag ñi di wax ay pénc euh, léegi nag bon bi nga yoon ñu woowee laaj ñu suñu xalaat liñ leen war a wax mooy lii ñu xam parce que ñun ay mag la ñu nekkal balaa ñoo def dara dañuy bàyyi ba mag man damay bàyyi ba mag ñuy wax ba pare dañ ne su méngoog seen wax ak seen wax ñoo xam ne moom mooy mooy mais mesure bi ñu jël di laaj ba xam ndax pêche bi ñuy jël si bato yi ndax arrangé nañu initiative bu baax la wala ñu dinaa ne waaw dinaa ne déet parce que loo waroon def balaa nga koy def communication da nga yónni ay ndaw ñu jaar si tef si laaj leen seen xalaat ndax temps de bateau la ñu wax bu noonu di supposons ñu ne vingt bateau la ndax ba mais bato bu nekk ak matière ba ngay nam ban lan la ñuy wax boo ne lii ñu def ndax initiative bu baax la parce que changement climatique bi li géej gi géej gi dafa am changement climatique ba tax na ressource bi fi waroon am bu njëkk amatul ressource bi amoon bu njëkk ba amatul plus que nag ñu jël ay bando pêche industrielle union européenne ñëw daf ñuy gën a handicapé man daal si li ma gënaloon moom ministre bi si boppam mu yónni woon ay ndaw wala mu ñëw teewe parce que munoo toog fa nga toog di yónni di wax loo xamante ni si pêche maîtriser woo ko parce que ñun ñuy wax si pêche lu ñu dundal lu ñu xam la euh, depuis 76 ba léegi ñu ngi si géej gi man mii def naa navigation xam naa li si bateau industriel pour laa nekkoon ba société yi fa fay yëpp xam naa leen euh, tax na nag bu ñu jógee joxe benn communication di laaj ni ñi xabaar bu wàccee rek ñu ne ah ndax baax na wala baaxul soo si dajeeg ñoo xam ne xamuñu ko dañ naan baax na mais pêche industrielle moom amul lenn lu mu arrangé parce que bu njëkk ba ak léegi léegi 18 millions d' habitants lañu bu njëkk ba bari ñu habitant bi union européen bu demee ba waat di wax au Sénégal géeju Sénégal lim fi bëgg war ñu mën a toog laaj acteurs yi ban façon la parce que fii mu nekk nii actuel nii fii ba ba ngay yegg Casamance pêche bi fi am ñu ñeen ñëpp ay responsable lañu si benn pêcheurs yi xam ne euh, pêche artisanale la ñuy def ay responsable lañ pêche industrielle ay responsable lañ parce que am na léegi mauvaise type boo xamante ni ñu ngi koy pêché parce que ñàkk moo ko indi mooy li ñuy dund nii rareté de pêche bi ngay dégg nii yëpp jigéen ñi si kaw marché yi di wax naan géej jën dafa seer dem si ñun la ak si ñoom mais bu ñu amoon reproduction comme ni ñu daan def ñaar lañ ko fi mës a def ñu réussir muy coof ak pulpe amoon na reproduction géej da nga koy noppal mais allez allez allez allez allez dafa dafa dafa dem da ngay noppal yu ndaw yi mun a màgg weer wii wala weer wala jën wii moo fay am nga dem seeti leneen nga bàyyi boobu màgg mi ngi mel ni bu euh, nga dem daral ba fekk xar yu jigéen yëpp rey leen bu dawee ne doo tabaski mooy li ñu dal suñu géej gi bateau industriel yi nag ñoom seetuñu si loolu nañuy buub rek ñoom nañu am bañu ko ba dañu am ay usine si géej seen bateau yoo xam ne dañuy ñun gis dund nañ ko man dund dañ koy def mais nag état si boppam dafa jub ne dafay jub jubal nañ ñoo indil ñoo xamante ne ñu ñu ñu ñu ñu ñu am pastif lañu ñu am xam liggéeyu géej parce que géej mooy suñu ressource géej ak euh, àll bi na euh, euh, tool yi ñun loolu la am ñi si tool yi bu neexee ñi si géej gi neex la parce que ñi si géej loolu lu jaral taxawal la géej gi buñ ko sàmmee mu dundal ñëpp parce que li mu mën a dundal moo béykat bi amul leneen lu ko mën a doon mais nag dafa ne euh, euh, pêcheurs yoo xam ne ay pêcheurs costume lañu xam lu ñu jàng théorie mais kii def pratique boo ñëwee laaj ko mu wax la la mu pratiqué la mu des géej kii def théorie du la ko wax ñoom ñaar nag mun nañu ànd parce que ñoo ñu defal formation. alors lan ngeen di xaar ci njiitu réew mi président ah, yaakaar li ñuy yaakaaree yàlla gannaaw yàlla ak yonent ba ñoom la ñu yaakaar mais ñu defal. mënul nag tëbal tëb tey rek mu sotti liggéey ndànk ndànk la yàlla sax bu muy sàkk àddina jëwul rëb rek ne àddinaa nguk mu kun mu nekk mu taxaw yàlla def loolu si ak kii ñëw ba Sénégal yëpp yàlla ëlbati si mën na am yàlla def si moom parce que séeréer la fay rek la sant man sama man Diouf sant moom fay la sant amul amul amul lu cere la bëgg ma bëgg a cere waaw léegi nag li ma koy ñaan mooy mu doxal ak ministre premier ministre lañ doon wax ba sénégalais yi am wóolute si ñoom na ko wax parce que campagne bu ñu déglu si campagne yëpp avant campagne yu sax dañ doon wax si problème mu géej mais géej nag il faut mooy li may wax rek les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. mais dégg nañu sax avant moom ñenn ci ñi nga xam ne nekkoon nañu ay candidats. ndéem si yàlla Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak ñeneen nan ëllëg bu ñu nekkee njiitu réew kat la ñuy njëkk a dogal moom mooy accord de pêche yëpp ñu dagal ko tey moom mu ñëw fii parce que am na benn message boo xam ne war ngeen ko ko lancé. liñ koy lancé mooy la mu doon wax. gor sa wax ji président la xale la am na avenir cinq ans ah, yàggul cinq ans yàggul la nga wax yëpp maîtrise ba si ñuy dawal Jakarta ñoo am yaakaar si yow da def la nga wax. la mu waxoon si pexe na ko dogal na ko def jaam ak pexe nag yàlla ak dogalam am na yéene muy wax wala waxu pour ñu fal ma président moo tax may wax ak sénégalais lii loo xamante ne duma ko def loolu amul parce que bi ñu tëbër rek dégg ñu ne dogal yi jël si géej dafay xaw a jaaxal nit ñi léegi nag nit ñaa ngi commencé chambre naan ah non ñi nguur a leen neexoon wala ñi nguur neexoon dafa wax ne day jub jubal moom ministre am nañu def fa ñu njëkkee woon mooy lan si pêche mbay door ñëw nag si ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw ji ñi nga xam ne ñoo ñooy euh, euh, travailleurs yi branche bu nekk ku nekk na nga fa yëkkati dara nga compal leen ko ñaanal nañ ko yàlla nag pour mu réussir parce que géej moom du moom mooy def moom mooy jël géej ji euh, jën si géej gi de dañuy ànd ñun ñëpp ñu bokk wàkkirlu si yàlla ñaan yàlla kii mébét bi mu am si géej gi pour mu def pour nit ñuy dundaat soulever waat yàlla ma defal ko ko loolu yàlla defal ko ko def ko si géej gi def ko si euh, tool yi def ko si àll mais ñu nawetu jàmm nawet bu barkel loolu boo amee réussite loolu mooy dundal doomu aadama koom-koom mais pour tëba tëba tëb tëb riñ nii tey tey tey nga ne ndax lii ñu def nii baax na déedéet dañuy war a defaraat dañoo ndëppal ñu naan ndëppalaat ñu nuwaat léegi nag lii baax na parce que tamit bu fekkoon ne lii rëcc na ko te lii xam mais ministre bi ñu ngi koy laaj mu teg ministre de la pêche mu teg tànkam si plage mu wax ak coutumier yi parce que bugguñu ñuy wax ak ñi nga xamante ne maîtriser wuñu lan mooy géej géej il foog nga dem ba sa mbaar ya comme yu mel ni mag ñu mel nii ñu toog ñu wax la seen xalaat nga boole lépp nga dem toog ak sa ministère. parce que man jaar naa si ministère yu bare jaar naa si ministère def naa lu nekk si gis naa mais yi ñuy wax su fekkee ne dañ koy wax ñu bind ko ñu yëkkati ko dugalaat ko si tiroir yi doo am njariñ merci jërëjëf